bismillah ci seen émission daaray xam-xam ak Serigne Modou Lo Assirou seen émission daaray xam-xam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 sëriñ bi ne xilaafahu wuute gi nga xam ne moom la yàlla wuute lil xalq yi ak mbindeef yi xat aw jabaa war na ajisul waral lottu mbindeef yi àndar kii ci xam ko fa wajabaa lu war la xiyaamuhu taxaw gi yàlla taxaw bi nafsi ci boppam subhaana tudd naa sellam nga wajaa jullu la lii ñu lu xeneen woomal bi maa ci li nga xam ne sanaa waxlatuhu nam gi moom yàlla fii saatin ci jëmmam ji wa fi sifaati ak ci ay melokanam wa fi fiyaali ak ci ay jëfam mahat effacé na afaat yi ay gàkk-gàkk wax ya moom dikk na saadisatan juróom-benneel ba fil xadat cib lim maarufatan di luñ xam biyaa ci moom tariqatul madat mooy yoonu way jubi wajabati war na alxodratu kattanu yàlla gi wal iraada ak nammelam ga wal xilmu ak xam-xam wala xayat ak dund xinda saada ca sang ya wala samhu dégg wala basaru gis wala kalaamu ak wax li man ñël képp ko xam la ñël ko xaq di yaa pas-pas wal kalaamu ak ay wax wa kawnu nekkam ga xaadiran di aji gën gi am kattan wala muridan di aji gën gi nammeel waa aliman di aji borom xam-xam xayyan di aji dund xadaa gindina al murida murid bi wakkunu ak nekkam moom yàlla samihan di aji dégg wala basira di aji gis wala mutakaliman di aji wax xadaa gindina al xusura pale yi faransi yi nag moom hisru na ñaar fukk la teg fi dina fekk naara sawara waxtaj lu bu tëddee xëcc ak dirhama dërëm yi wa dinaara ak dinaar yi xoddatu bi kattanu yàlla gi wala iraadatu ak nammeelam gi maxaan boole seen taxan laxat aaju na bil mumkinaatin ci mbindee fi bil ci mbindee fi fas maxaa déglul xuddatun kattanu yàlla ga xaadirin di ajam kattan xaadirin di ajam kattan muxtadirin ci ajam kattan te dana fekk lii ñeenu bi menañ ci xéewal lii ñeenu tam tadir ci fent iraadatu la si nameel ga nga xam ne lima la nga xam ne lima ca la nga xam ne saa soom na ko faxal moom moom lay def te jur dana womat lii ñeelnu bi maa ci lépp loo xam ne yasuru day bégloo waan faxal mu def ko xilmul alimi xam-xamu aji xam ji wal xabiiru ak yu biir yu mooy yu nëbb yi xaada wambat na fattan ak ubbeeku faydan lii ñeenu maan boole seen fan xaada mu womat xalama ni xamal nanu bi ilmihi ci xam-xamam ba xuyubaa ay xam-xamu xëybu karamahu teral nañu ànd ci ñun maaxa effacé na xuyubaa ay ayib xayaatun baax yi dunduk aji des ji laay mawtu du faatu sarmada ba faw fat sellal na xayaat yi sunu dund laa ulaaxi déet ñuy dajee kamadaa njàqari xayaatuhu dundam ga liye ñeelun tëjudu wamat na bi sifaa ci sellal wax ya moom yàlla bi baaxin ci aji des la wa bi xayin ci dundam ga wasifaa ci ay melokaan xayaatuhu dundam nga tutawilu day du day guddal alaxmaara dund yi lima ma képp koo xam ne temps laxu daa aju binaa ci ñun ak maara samhu saamihi déggu aji dégg ji xaada womat na lii ñeel ñu al ijaaba wuyu ko wa fil ijaaba ci ci wuyu googu nag taf ci la dàqe najaaba lépp luy njàqare samiha dégg na maa najatuhu képp ku ko woo bii ci moom fala akunun den muy nekk maxruman di aji xañ wala mun safila den nga aji suufe samhul la si déggu ka nga xam ne lii ñeneelu xëxëra moom moo not al ahdaa noon ja wali ci moom xadaa lay faja alxaaja aajo yi asaala dindi na addaaxa jàngoro yi basaru man gisu ka nga xam ne lay sa xale yi déet ci moom yàlla yax faa dina bu sëy un dara xabaan ya fegal na lu bi xëri afa ci gën gaa ji feeñ basaruhu gisam boobee axrajani génn nañu mina hidaa ci noon yi wakkanuhu te nekkam nga lii ñenn ñu kafaan yi fégal nañu man xaadaa képp koo xam ne am noonu la basaruhu gisam nga waxaa fegal nañu xiyaal yi sunu njaboot wabaa tamay mbas kama xadaa comme ni mu gindee kulli lépp ku kulli te sama lépp sawaaba di aji jub kalaamu mun silul kitaab waxam ji nga xam ne moo ko wàccee te mooy alxuraanu karim lii ñenn nu xadan ëllëg milkal ak moomeel yedumu gu sax lii ñenn yu di sax goo ne raqada kalaamu wax ja xam ne lam yëkku nekkut ab kamun di waxi ku jalab ñot dina lii ñenn xuyuru lii ci njariñ ja salab mu sóob ñu ca kalaamul baaxi waxi aji des ci lii ñenn ñu yaqudu wammat karama ci tedd nga xaata ba nii wàqante na bii ci ñun laa asaalu déet muy deñ akarama dinu teral jamono bu nekk allahu yàlla xaadirun ko kattan la xalaa kulli la yaa ci lépp lu mën a doon xudratu kattan ga kattanam googee nag lii ñeel nañu tëjoodun wommat bi ayaat allahu yàlla jàlla màgg na waxaalaata kawe na muridun aji nammeel la wali ci loolu yu kawinu ci lay formé mu nan bépp xéwal urida ci nammeel allahu yàlla alimun aji xam la wa xayun aji dund la sam samiyun aji dégg la xal la ma ni xamal na lu safaa te sellal na xayaati sunu dund ka jëwoo ni ki lépp wa mu takkale mun aji wax la xabaanii fegal nañu bi kitaab yi ci boobe boobee wali ci loolee tuwasilu lay méngale mu nan xéewali bilaa xitaab ci la um benn coono mu ne jaaxatu jihaad naa man laa yuminu képp koo xam ne gëmut abada ba faw xabluñ ci njëkk ba bii ci loolu rabbi suñu boroom yu baax yi mu jaayante xubada aji jàmm ci mu ne raafaxtu teqalikoo naa ak képp koo xam ne man xat amunu gëmoon na mu waxtul xitaar yuñ ci waxtu xeex waxtu xare ba walla ji naa ba àjjana lay sa yoon wu dir muy effacé xitaal léewtoo ka anfaxtu dundal naa wala dépassé naa fillahi ci yàlla wa fi ak ci yonent bi in faa xaman goo xam ne faa sa texe na bi réerin soluñ ci gën gi aji sóobu amantu gëm naa yàlla bil xay bi ci kumpa walillahi ci yàlla uqiim ci laa sax asalawaatu xam sa ak julli juróom faaraxtu faaraxtu ma teqalikook saxiim lépp luy ragg ak njàqare xat saara mujj na lii ñeel ma bil alxuraanul karim min kan dik moomeel wa hëdaa ak gindeeku xaada wambat na li ñeenu tuxaan ragal yàlla ëllësi yi nga xam ne kulli léppam xada ak gindeeku la mu ne faaraxtu teqalikoo ak képp koo xam ne man laa yuminu ne gëmut saayiran ci lu feeñ wa baat na ak lu nëbb wala asaalu du ma dañ mukk taahira di aji làpp kon allahu yàlla rabbi mooy sunu borom xala nañ ci lu feeñ wa sirran ak lu nëbb wa xaadalii te na nañu bil mustafaahu ca lam tàmm sirra ca lamu tànn sirra wal mustafa nag moom salla yàlla na yàlla dolli xew àll yi ci mu allahu yàlla fil aali ci ñooñu wasaw ak saabam waman wala képp ko ànd moom xil ab xarit la moom yonent bi wax hibbin ab soppe la waxabaata bañ na madaarati yi képp ku may lor waraamata sàkku na min rabbil waraa ci bëdam mbindee fi masarati yi sama mbégte kon loolu Sëriñ Tuubaa boppam lay wax mu ne yëjoosu dina dagan fi xaqi karimin ci aqi aji tedd ji ala karimin ki aji tedd te yàlla al ki aji yaatu al ki aji jiitu almukarami kii aji tedd xalxul wara borom mbindee fi waxtarkuhu ñàkk ga bind falam yajid warut ale ci moom say un dara fa asxalillaahu kon dañuy ñaan yàlla yu jib ci lu war nee na bind gi yàlla bind nit ñi ak mu ñàkkoon leen bind dara waru ci fafatluhu ngëneelam ngëneelal yàlla képp lanaa ñeel nu yàqut day wamat xayraan yiiw wala xi daan ñeel noonu nag alxatlu maandoom nga yesuux di soob dayraa lor karamuhu teral nañu xaada womat na lanaa ñeel ñu jamee xam mboole seen sirran ci lu bu lanaa ñeel ñu xat xaxëra not na jumuha mboole seen walan bi yaayu mboolem yonent yi xubbuhum bëgg leen imaanun gëm leen wa buxduhum bañ leen nag kufrun ak wet la bii ci moom xirmanun ak xam kon nee na an anbiya yi bëgg leen ak gëm leen lu war la waaye bañ leen ak wedd yàlla la te dana xañe yërmande suñu borom alayhim yal na nekk ci ñoom yonent yooyee salaatum mboolem luy xéewal wasalaam ak lépp mboolem luy mucc maaxabaawum feeg mi ngi bëgg rabul wara borom mi di fi tama yàlla asalaamu jàmm xubbu jamihul awliyaa bëgg mboolem waliyu yàlla yi wajabaa lu war la képp kuy nit ukul man képp koo xam ne xaada noonoo na xiyaara tànnee fi xujji baa ñu yiir ko képp ku noonoo waliyu yàlla yi wala tànnee fi suñu borom yi ñu yiir la ci yërmande yàlla xalaa jamiil awliyaay nee na mboolem yàlla yu yàlla yi ridwaanu man ngërëmal képp koo xam ne jaaluhum def na ko raxmatu yërmande kullu samaan bépp jamono wa hubbu naa sunu bëgg lil xulamaa yi ñeel ñeel mbooleem borom xam-xam yi nu di baa soppeef nañ ko maalum yu siihu sunu ñaawalut amalan seen jëf waa daba ak ay teggin kon nee na bëgg mboolem borom xam-xam yi lu nu soppi la feek borom xam-xam yooyee doonul borom xam-xam yu dëng te ñàkk topp yàlla alayhim yal na nekk ci mbooleem borom xam-xam yi jëfi seen xam-xam rahmatun yërmande turan mbooleem seen fii jamil muslimina ci mbooleem julli ñu góor ak ñu julli ñu jigéen ñi maa xawaw fee mi ngi laq xuda njub goo xam ne samewun aji dégg ci nee na buux du jamiwu kaafiri bañ mboolem yéefar yëpp na xutima lu war la li ji baax ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne sirruhu sekkere ba xat xutima nëbb na ko kon nee na bañ mboolem yéefar yi lu war la ci képp di jullit wal bu bëgg lil kufaar yi ñeel ab yëfar nag wa diyaana ak boroom diine yi nga xam ne du diine lislaam bi diine ci seen diine joojee neen loola min aqbayil xiyaana bokk na ci gën ngaa bon ci war ci wor na bañ mboolem yéefar yi lu war ab jullit waaye bëgg ab yéefar koo xam ne bokku ci diine lislaam nee na loolu ci jikko yi waraako yi gën a bon ci jikko yi la bokk ndax képp ko bañ lislaam rek des ko war a bañ ngir bañ gi mu bañ lislaam nee na waxubb kul muslimin bëgg bépp jullit bu góor wa muslima jullit bu góor li waji baax ngir jëmmi yàlla mi aji des xat kafaan yi fegale nu salama ak tooñ xat dikk na man du ban diruñ sopp fa karimu tere nañ jamexan boole seen li wajaxaat yi ngir jëmmi yàlla mi aji gindee lam yasal du deñ xayra samixin di aji gën gi dégg faansi yii na moom sifaatu melokaan yoo xam ne si falaax boroomu texe yuddiri yi da koy xam wala mu làmboo ko bihaa ci moom salaaw si salaam mooy yéwénalu boroomu yéwén nee na melokaan yii nag ay melokaan la yoo xam ne képp ku yàlla nar a def ci yow nga nar a texe àdduna ak alaxira melokaan yi faaw nga xam ko te jëfe ko su ko defee sa lépp dana yëwén àdduna ak ëllëg yamal xiyam kon day mel ni téere bi sëriñ bi daanaka bi mu tàmbalee li ci ëpp daanaka ci yàlla lay wax ci yàlla lay wax daanaka yàlla moo fi njëkk ku fi des lay doon yàlla du faatu ci loolu la dul wax waaye nag melokaan yooyu day ay melokaan yoo xam ne dafa am loo xam ne yàlla du bukk ko kenn mooy njëkk gi fi yàlla njëkk ak des gi mu fiy des ak dund gi muy dund ba faw ak ñàkk gi mu ñàkk soxlaal kenn muy melokaan yoo xam ne yàlla bukk ko kenn waaye bu dee lu mel ni wax ak dégg ak gis moom loolu yàlla da ko bokk ak nit ñi waaye nag fa ci suñu borom yegg kenn da ay yëgut ndax nit day wax nit day gis nit tamit day am kàttan day am lu muy bëgg day am lu muy bañ yooyu xañ na suñu borom moo bind noonu nit waaye dafa am yoo xam ne yàlla da cee wéer nga xam ne kenn fekku ci mooy njëkk gi mu fi njëkk ak des gi mu fiy des gannaaw bu ñu faatoo ak dund gi muy dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem ak jëm doon gi mu doon jëmm joo xam ne wuute na ak mbooleem mbindeef ak ñàkk gi mu ñàkk soxlaal kenn te ñëpp soxlaal ko yooyu moom yàlla da cee wéet moom képp am na ci yoo xam ne yàlla da ko am nit nit am ko waaye nit lam ci am daa am fu mu tàmbalee am fu mu yem yàlla nag lam ci yor amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem loolu yooyu la Sëriñ Tuubaa doon leeral daa di wax ne ñaar fukki melokaan yooyu nag day fekk nit ci sawara yóbbu ko aljana su ko nit xamee noonu kon yooyu mënul ñàkk nit xam ko su ko defee fa mu war a teg yàlla mu mën ko faa teg xam dëgg-dëgg yàlla ndax dañu wax ne nit bu tolloo ci sukkuraat am na ci foo xam ne suñu borom dana xool pas-pas maanaam fan la tegoon yàlla dana ko xool foofu nag wax nañ ne ëpp ci ñii dem àjjana foofu la ñuy mucc mu ne allahuma salli ñu ngi julli wa sallim ñuy sëlmal wa baarik yàlla na yàlla barkeel a seydina sunu sànq wa mawlana ak sunu kilifa muhammadi muhammad waali ñuy wasabee ci saabam waajaxal defal bi xaqi wajikal karim yi ci jëmmi aji tedd ji xënsi ab yaat yii bëyit xis nan mu doon kaaraange goo xam ne xasinan ak kaaraange lay doon li jamihil muslimina ci mboolem julli ñu góor ñi wal muslimaat ak julli ñu jigéen ñi amin yal na yàlla nungu ñaan yaa rabal xaalamiin yàlla mi borom mbindee fi subhaana rabbika tudd naa selluk yàlla rabbil xisati yàlla mi borom mu tedd nga xammaa la nga xam ne yasifu na dana ko melal wasalaamun mucc ala mursalina ci ñim yónni walhamdu xeeti cant yi lillahi ñeel na yàlla walhamdulillahi rabbil alamin xeeti cant yëpp ñeel na yàlla kon ñuy wax ne asiru maal abraari hiina asiru wasan naan hidda an hunaaka asiru hoyyaara hosaara li siyaatini wal hawa wa inni li rabbi xas jalla asiru asiru ila sil barri wal bari abidan wala su ila fajar awda asiru xala man bi xajana minhu mun sana sara taqisu aysu asiru wa aleykum salaam wa rahmatullahi bismillah ci seen émission daaray xam-xam ak Serigne Modou Lo Assirou seen émission daaray xam